Euh, kiosque amoon na à côté waroo jaay mbu euh, mburu ci boutique. mais appliqué wuñ ko. Ah, appliqué ko parce que fi ngay teg comptoir bi ngay teg saabu. Hmm. ni ko waa oh. san waxee produit chimique fa ngay teg mburu mi ñu diwal la ci. mais boutique moom moo du warul jaay nag. boulangerie koñ bi bu nekk rek mu wala kiosque normalement boulangerie moo war a jaay wala kiosque jaay wala kiosque waaw justement pas boutique pour daaneel juste bàyyi leen ngeen réagir euh, il faut juste dire Asma qu'en 2018 ci amande yi rek service d'hygiène di di collecté en 2018 par exemple récolté nañu plus de 63 millions ci ay amande ci yu mel ni hmm? ay grava ay jaay lekk ci mbedd mi ay tur euh. ndox 60 3 millions fu ñu dem paasan fu ñu fan nañ dafa tuuti ah, moo tax ci ne ci rien euh, a dafa xaw a bi mais c'est di dugg di contrôler gis nga police ni muy taxawee ci tali bi di mm-hmm. contrôler oto yi noonu la service d'hygiène war a bari ci koñ yi mm-hmm. di contrôler ci biir kër yi sax comme ni ñu ko defee nii ñoom awakam mm-hmm. service d'hygiène dugg ci kër yi di sensibiliser d'abord parce que Sénégal day def ñoom tombé la ay yow man xaw ma ci woon dara. léegi nag boo njëkkee sensibiliser Binta. dinañ xam ne yow jaaroon nañ sa kër sensibiliser ñu la. voilà léegi nag li ngay def yaa ko tey lii moo la ciy fekk nii daal. man dama lay rejoindre bu ma rafetloo li nga indi parce que dafa am solo tey jii santé euh, dañ ko war a jox euh, priorité parce que nit ñi bu ñu wéerul tamit activité yi day taxaw économie du dox en passant. mais bu njëkkaan bi ñu nekkee xale da nga doon gis ni dañuy jékki-jékki rek ne yaay service d'hygiène dugg na ci koñ bi. <laughs> ñëpp tiit famille ñii di bale ñii di defar seen temps yooyu ndaal bëri woon na di xool ndaal di mm-hmm. jékki-jékki laat mais léegi gisatuñ loolu moo tax laisser aller bëri problème euh, euh, peut-être effective bi nga wax di nga ñu si gëstul indilaat ñu ci ay leeral kon incha allah. mais mais kii mi ngi ñuy won boppam. <laughs> maam Sidi yaa ngi ñuy sa doole borom doole xamul ndànk waaye ndànk rek ak ñun ndaxte nag da <laughs> yaa ngi ñuy taaral ñuy yëg suñu bopp macha allah si plateau bi aha gan bu ñëw na. dama <laughs> doon si Ahmed Aidara dikk na loolu moo leen di nii rek suñu jógee ci lii dañuy daal di dem ci li nga xamante ni moo lii gën a fës ci bopp yéen donc lii laa leen andi doon asma uh-huh. c'est important ñu bàyyi ci xel bi bi Mouhamed ñëwaat ci waay waaw dinaa ko gën a yaatal parce ci collecté amondi en 2018. 14 millions mais Mohamed reste en notre compagnie ngir a sax ah nag sori ah dem ci li nga xamante ni mooy li gën a fës ci bopp yéen kay Mohamed. Ah. waaw Ahmed <laughs> gis ngeen ne Mouhamed Ahmed sama ndijaay la monsieur le maire. loo xalaat ci affaire bi monsieur le maire. waaw loo xalaat ah? bi ak. mais mais yaay booy Binta wax na ko léegi. Hmm. temps yàgg bu ñu waxoon ne paasan service d'hygiène day ñëw ci ñu bi. Uh-huh. ñun doon gis suñu yaay ak suñu sœur yi. <laughs> ñuy daw dugg ci biir. toilette yi yor ay eau de ñu yor ay omo. ñu yor ay bale kaas kaas kaas mais léegi. <laughs> eau de javel grain bee ma ciy rey. waaw. grain lañ doon laal dañuy xeeb sax ndox mi. mais léegi parce que loolu zéro déchet bi ñuy wax nii. liggéey boobu su continuer woon. mais du soxla ay zéro déchet. ak ay cleaning day. ak cleaning day soxla wu ko. Ah. c'est bu service cleaning mentalité lañ war a dooree. <laughs> c'est clair. <laughs> macha allah kon nag ñu dikk ci li nga xamante ni mooy li gën a fas ci bopp yéene kaay nga fas yéene ñu ko tàmbaleel fan tribune ba tey. moom kay amul sa xaar ak ay teg ay jingal yooyu termine yéene kaay ñëw ak ñun tey ci euh, l'économie sénégalaise mm-hmm. madame économiste mu ngi noonu toog journal bi dafa bind ne France daal France daal xam naa daal moomaat nañu daal France nag neexul ba neexul mais dañoo nopp mënuñoo bàyyi wala SGBS CFAO Total Senac euh, mi ji wàllum euh, solaire yi Alstrom ci lens lu ëpp mille milliards la TER beeg société bi di wanaasu ah wa en passant dama je suis député dama triste <laughs> ah mais exclusif li mu wax mooy boo xoolee ba ci biir nag président Macky Sall def na ay jéego exclusif je m'explique nee na boo temps yële ñu génn association yi mouvement yi politique yi citoyen yi mais ñëpp li ñu doon ŋàññee président Macky Sall mooy mu jébbal boppam nasaraan yi au triment des nationaux rawatina nag waa France. Ah. waaye boo xoolee guddi ñu toll nii. ci ci ci euh, semaine bii daal semaine bii. waaw waaw développement beeg acte yi mu pose xam nga. jéegu de <laughs> paasan. mu ngi jéem mu ngi jéem moo xoolal léeg-léeg mu dóor. arrière jéegi saako dellu si waat xëppoo ndox taxaw non dëgg la paasal mbër moom boo demee. président muy dóoree. mais gauche bi dañ ko ko tere. Euh. waa ay ñaan dañ ko ne muy dóoree gauche bi. waaw ah, ah, ma Macky gauche bi baaxul de. nu muy dóoree euh, nu muy dóoree. Macky. Euh. bi baaxul gisoo moom droitier rek sax lay ëpp li ñuy utiliser nii mais gauche dañ ko ko tere. dégg parce que li mu wax tubaab bi fi ñëw barki Dembo Ndiaye a propos de l'homosexualité gis nga ko boobee benn ñaar li gouvernement bi tontu ambassadeur u France fii ci Sénégal ab ambassadeur démentir ñaari ministre de la République fëpp daaw Daouda Diallo ak maître Youm ci avrilu PR gi 2020 bi mu weddi ko ba tëdd ci suuf naan ay impensable waaw et puis le mot sax moo garaaw waaw dafa garaaw attaque la yemul ci du daw de bu leen ko fi xalaate léegi moo gars yi nag remonté nañ ay bërëtëlam bu baax lu jëm ci peer teer gi ak péage bi yëpp en tout cas daal ba pare mag itam temps itam dafa ubbeeku de waaw chinois yaa ngi nii waaw yaa ngi nii ak ak waa Dubaï ak waa Dubaï Dubaay nag dañ ne woon Karima ko moom waaye ah <laughs> Dubaay loolu moom beneen dossier la voilà bokkul ci revue des titres bi balaa ñu maa woo. 24 <laughs> heures ah dëgg la dëgg la dëgg la lii moom du samay kàddu moom damay liir nii rek ma ci boole mu lu ci bokkul dégg 24 heures ñëw ak ñun ci wàllum daganal góor jigéen ci dëkk bi. 24 heures laa wax 24 heures waaw kay waay dara bougé wul de tonton fi mu nekkoon foofu la nekk ba tey. Ah. li mu tontu woon Barack Obama moom la tontu ba léegi nii la kii. Mhm. di sëñ bi Trudeau premier ministre canadien. di ko coro saara ngi nii toog alkaalima sàmba borom jam-jam ya ca gànjool kenn du moom wallaay kii ñu xamale ak autoroute à kii moo tekki mbuumu njaam gi moo jël ambassadeur u unis teg ko ci kanamu télévision waas ko xamal ko boppam <laughs> kii fi jëlee borole jëlee fi armée française nangu suñuy suuf tubaab yi xeex ko xanaa kii wàdd neex a ngi nii toog dane patt nag biñ présidentiel yi ba léegi Ablaye dane patt c'est loolu mais pacte pacte pacte bu jaaxal ñu bëri nag. Hmm. waa dialogue par le silence. waa du noppeem sax wax la. dëgg la déggoo ma de kii Aimé Jacquet la. ngi football <laughs> waroon nañ fee am bal nag ba ma woon yaay booy ana lu doomam mëne mais grave ce n'est que partie remise mu ni. Eh. lu wax jarbaat lu wax. ma ne yaa ci xarañ ci xarañ ci football. ah mooy sama loolu du ñàkk asma a indi. mooy ma ba non suba moom xisa yi <laughs> dégg nga loolu dégg nga loolu. yab ngeen seen rek yab ngeen ma léegi rek ndax ubbil sama kanam. sa yaay ma ko ah, kon defal ba mu neex. Binta day du caaxaan moom dégg ah, gis nga asma. naam. jàmme. Hmm. nee nañu journal bi ñu expliqué tey ni mu lemee Gambie. ni mu. lemee dëkk ba da koo piyee. déet <laughs> jàmme li mu tonni ci alalu Gàmbi gii. ah. Euh, jox ma beneen journal waaye ki ko fa wutu moom kenn du moom kii. li mu waxoon def ci dara dara dara aadama Barrow. dara dara borom ñetti at yi. bëgg a def ñeent jàpp juróom nit ku ñuul wéeruñu. ay soxnaam de de. mais Ameth pourquoi sans commentaire pourquoi doo ci wax dara ci. Euh, Yaya Jammeh mi. Yaya Jammeh la mu jël ci alal. Yaya Jammeh kay dañ ne lim sàcc dafa bari. <laughs> ñu ngi nii. mu daw na mu def ci biir Gàmbi gi avant moo dem ëpp na. Yaya kay Yaya Jammeh ko nappal ko ñemee léegi. <laughs> Jammeh rek Jammeh kay ma ki lay waatee. <laughs> CEDEAO jëlee wu ko ba de. ah. Hmm. bon CEDEAO amoon. si jamono Macky daa ne woon président bi te Macky géré lépp. Ah. bi ñuy prêter serment sa waay. Ah. man damaa fekkee kenn nettaliwuma. Ah. Hmm. Macky maa ko jiitu Gambie toog xaar ko fa. <laughs> bi mu ñëwee ci aéroport bi. Baro la nuyu Fatmata Tamba Diang. Mhm. nuyu benn officier. Hmm. trois man maay cinquième personne bu mu nuyu. après teg ci Pape Alé Niang. teg ci Pape ale Niang mii tey. borom bu mag bi. dëgg la waaye dindil ma jàmme waaye te nga indil ma ki des. <laughs> alors waaw kay. Olivier Brice Sylvain ngi nii nag. Dakar Sacré-Cœur Ahmed Ahmed kooku moo toj dëkk bi. kii tubaab bii. moom na eh pourtant dañu moom moom ci massage rek la yemoon. massage waaw waaw kon lu tax ñu téye lu tax ñu téye ko. na ma jox l'observateur ma expliqué la. Ah, ah. kaay kaay xaaral ma génne la l'observateur ma expliqué la léegi lan moo tax. waaw kay <laughs> l'obs a ngi nii toog.